bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain ayuha almushahiduna alkiram wa ayatuha almushahidat assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi tedd yi ñuy seetaan te ñu seetaan fii ci TFM religion ñu ngi leen di nuyu fu ñu leen baaxu nuyu di leen dokkeel di leen dalal ci seen émission seen jataay bii di euh, minbaru saxaaba mbokk yi minbaru saxaaba euh, penc la moo xam ne dañ fiy euh, càmbar di fi nafar di fiy jàngaat jikkoy saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam seenu doxaliin ci àddina nekk gi nekk woon ci kaw suuf ak doon gi ñu doon ay royukaay ci mboolem jullit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi xam ngeen ñi ngi nekkoon na ci saxaaba bu màgg saxaaba bu am jaloore saxaaba bu liggéeyal lislaam waaye liggéeyal boroomam wante liggéeyal tam jullit ñi muy Usmaan ibn Affaan radiyallahu mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi nekkoon doon wax nag ci kersagu gu Usmaan am Usmaan ibn Affan jëm loon ju bari kersa lool nga xam ne dafa rus boroomam gis ko muy def loo xam ni yàlla daf koo tere wala boroomam gis ko muy wax loo xam ni yàlla daf koo tere wala ay moroomi jaamam gis ko muy def loo xam ni jikko ci rafet daf koy ñaawlu kon Usmaan nekkoon na ku bari kersa ci lañ ne ko doon ci wax mbokk yi Usmaan ibn Affan daf daan wax ni ma min aamilin yaamalu amalan illa kasaahu llahu ridaa amali muy wax ni amul benn jaamu yàlla buy jëf jëf ci kaw suuf lu dul yàlla dana ko fay jëfam jooje su dee jëf ju baax la borom bi daf koy fay lu baax ca mbaaxug yàlla gana mu yaato waaye itam bu dee safaan la lu bon la bakkaar la mooy yàlla la lu yàlla tere la te yàlla baalu ko boroom yàlla dafa koy fay bu ëllëgee ca ak maanaam moom yàlla yu jële ci al al almanawi ca faydul qadir muy wax ni maqaamu osmaan maqaamul xayaa muy wax ndaal osmaan maanaam wàccuwaayam bi gën a rëy ci jullit ñi ak fa boroomam ak fa yonent bi alayhi salaatu salaam moo di ne Ousmane dafa nekkoon nitu kersa kon lim am lu ci lu baax lu bëree bëri mi ngi ko jëlee ci am kersa moom Ousmane wal xayaau farun yatawalladu min ijlaali man yushaahiduhu wa yuxazimu qadrah maa naqsin yajiduhu fi nafsi fa ka annahu galaba alayhi ijlaalu lxaqi taala wa raa nafsahu bi ayni naqsi wa taqsir wa huma min jalili qisaali libaadi almuqarrabin faalat rutbatu Usmaan radiyallahu anhu kadalika fastaxyat minhu xulaasatullahi min xalqih kama anna man ahaba allaha ahaba awliyaah wa man xaafa allaha xaafa minhu kullu cheyin mbokk yi al imam al manawi day wax ni Usmaan ibn Affaan radiallahu anhu darajaam ja gën a kawe wàccuwaay yu gën a màgg ci moom mooy doon gëm doon nitu kersa di rus boroomam ci lépp lu muy wax di rus boroomam ci lépp lu muy jëf di rus nit ñi ca la muy wax di rus nit ñi ca la muy la muy jëf mbokk yi nag kersa jikko bu am solo la ci lislaam maanaam am kersa jikko bu rëy la ci lislaam ndaxit it ki am kersa moom xamal ni yëg na ni yàlla yëg na màggaay yàlla ki rus yàlla gis ko ci lu bon murus yàlla gis ko muy wax lu ñaaw murus yàlla gis ko muy def lu ñaaw wala mu wax lu ñaaw ci biir jaamam ñi koo koy yëg na màggaayu yàlla yëg na itam nekkug yàlla yëg na itam sañ-sañ bi yàlla am ci ay jaamam boole ci ki yëg yàlla yëg ni yàlla am na yëg ni borom bi buur bu màgg la yëg ni borom bi ku kawe la ku tiim ñépp la dana yëg ni moom moom jaam la boo xam ni la war lu bare ba digganteem ak boroomam defu ko maanaam ko gàttañ lu digganteem ak boroomam ci lam war a def ci lu baax ak ci lam war a wax ci lu baax ngir jëme boroomam te mbokk yi loolu jikko ju rëy la ci jikko yi jaam yi jige seen borom jaam yi gën a jige yi gën a yi gën a jige seen boroom ci jaam ñi ñu bari kese lañuy doon ñu rus yàlla la ñuy doon ñu yëg màggaay yàlla la doon waaye itam yëg na ñoom ñu manqué lañ seen diggante ak seen boroom ñu gàttañ lu leen seen diggante ak seen borom ci lañu war a def ci lu baax ak ci lañ war a wax ci lu baax kon yooyu jikko yi gën a rëy ci li lislaam ci la bokk mooy yëg ne yow ab jàmm rek nga bu ñàkk solo boo xam ne bu doy de la waaye ni yàlla itam buur la bu kawe boo xam ni ku sell la ku mat sëkk mbokk yi nag kii bëgg boromam subhaanahu wa taala da cay boole nag bëgg xej yàlla yi te xam nga salaam moo féete kaw ci xej yàlla yi ma tax Ousmane cofeel gi mu amoon ci yónnante bi alayhi salaatu salaam cofeel la goo xam ne gu naqaree natt la gu naqaree xayma la ndax dafa kawe dafa rëy dafa dafa am doole teyit képp ku ragal sa boroom na nga ko war a ragalee lu dul yàlla daf lay ragal jaam bi saa bu ragalee boroomam na nga ko war a ragalee lu dul yàlla rek ab jaam la te su boobaa dafay ragal jaam bi ragal yàlla kon ku bëgg jaam yi ragal la ak mbindeef yàlla ragal la fexeel ba ragal sa boroom dëgg dëggi ragal sa borom wattaqullaha xaqa tuqaati jaam bi ragal yàlla dëgg-dëgg ragal boromam lu dul yàlla daf koy daf koy ragal tey mbokki nañ xam ni wal jazaau min min jinsi la amal jëf moom nam mel rek nala la fay ga di mel bu jëf ci rafetee baax fay ga dafay rafet dafay bari bu jëf ci tuutee te sell itam fay gi mën naa bari mën naa sell waaye tam jëf nag bu ñaawee itam nag ah fay gi nag mën naa ñaaw bu fekkente ni boroom yàlla jéggalu ko yàlla jéggalu ko moo tax waykat bi waxoon ni fala wallahi ma fi l ayshi xayrun wala dunya ida dahaba alxayaau muy wax ni dund gi day mënta neex mënta jëkk mënta jakk mënta am jàmm bu ca kersa génnee dund gi waaye mu itam nag àddina itam munta neex munta am jàmm munta jag bu fekkee tam ñiy dund ci àddina amuñu kers kon kersa lu am solo la ci lislaam waaye itam lu am solo itam ci biir nag société bi jàmm bi dund mu ne yaayishul mar'u mastaxya bi xayrin wa yabqa al uudu baqiya lixaau mooy wax ni daal nit ki li fekk mi ngi am kersa rek dundam ci àddina di man di neex di man di jekk di man di rafet ni nga xamante ne bii bant bi li fekk mi nga am ay xob rek man di dund mën a yàgg bant moom bu xasee ñàkk ay xob rek xamal ni jigéen a dee nit tam bu xasee ñàkk kersa rek xamante moom tam jigéen a jikko yu yàqu jigéen dund gu xajam dund gu ñagas kon jikko ju rafet daf ci bokk nag am kersa te bu ñu waxee am kersa fii nag mooy am kersa diggante ak sa borom ci wattandikoo jëf lu ñaaw ngir rus yàlla wattandikoo wax lu ñaaw ngir wax yàlla ngir ngir rus sa borom subhanahu subhanahu wa taala eh, Usmaan bin Affaan kaana yaqra'u alqur'ana kullahu fi rakaatin waaxida bokkoon na ci ngëneelu Usmaan bin Affaan daana jàng kaamil bi ba mu jeex baqara ba naas yi ci benn rakka kon ni mu bari woon kese nag teewul ne la mën a jaamu boromam rawatina nag bu guddee mu taxaw jàng alquran ba mu jeex ci benn rakka kon Ousmane bokkoon na ci ay ngëneelam mooy mokkaloon na alquran bokkoon na ay ngëneelam ku fonkoon julli guddi la waaye nag daana daana witaree benn rakka mooy witar mu jàng ci baqara ba naas ba mu jeex qaala abdurahman ibnu osman ataymi qaala rahimahullah xultu la aglibanna alleyla ala almaqam fa sabaqtu ilayhi fa baynama ana qaimun usalli id wadaa rajulun yadahu ala zohri fa nadartu fa ida huwa osman ibnu affan radiallahu anhu wa huwa xalifatun fa naxaytu anhu fa qaama fama bariha qaiman hatta faraga min alqurani fi rakhatin lam yazid alayha mbokk ñu jëlee ci abdurahman ibnu osman ataymi muy wax ni dafa am benn guddi wax xam ne man maa wax ni daal naa dem ci maqam ibrahima faane faa naafi la ba bët jot dunal guddi gi nee ma dem ci maqam ibrahima taxaw tàmbalee julli dem ba mu yàgg rek benn waa ñu daal may ko ba sama ginnaaw ma suma daal di gestu ndekk Ousmane ibn Affan te fekk boobu mooy xalifatul muslimin mu nekk kilifa jullit ñi moom Ousmane jamono booba Ousmane ñëw sama daal taxaw ci maqam Ibrahima fi ma taxaw di julli tàmbalee baqara di tari di tari ba àgg naasi lépp mu def ko ci benn rakka nga xam dafa naa ne jàng alquran ba fajar bëgg a jot lépp mu taxaw di jàng alquran boromam julli ko ci benn rakka nee nag bi mu pare ma ne ko Ousmane yow de ah benn rakka rek nga julli mu ne ma nag lii mooy sama witar man kaamil laay faral di witare léeg-léeg su ma sawaree dinaa faral di witare kaamil te mooy ma jàng baqara ba naasi ci sama witr door ko tëj sama julli guddi kon gis nga ne Ousmane ku mënoon a jaam boromam rawatina nag bu guddi gi sore kon nag nañu julli bi jàng ci osmaan mooy fonk naa fi la guddi rawatina tan nag. jëm di mokkal alquran li nga mokkal ci quran tam nga di ko naafila guddi te mbokk yi loolu lu am solo jullit mën a jàngee ci Usmaan ibn Affaan la euh, wa qaala Suleymaan ibnu Yasaar radiyallahu anhu xaama Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu baada al-ishaa'i fa qara'a al-qur'aana kullahu fi rak'atin lam yusalli qablaha wala baadaha mbokk yu jële ci Suleymaan ibnu Yasaar muy wax ni dafa am bis daal Usmaan jóg taxaw ginnaaw bi mu jullee gee ba pare mu taxaw nag di la mu tàmbalee baqara di tari ba àgg naasi bi mu àggee naasi nag mu daa di def ko benn rakka daal di sëlmal julliwul ñaari rakka lu jiitu rakka boobu julul tam beneen rakkaatam ginnaaw rakka boobu ko xam ne dafay tekk kon da doon wetar da doon julli wetar mu jàng ci kaamil ba mu jeex kon kooku mooy Usmaan ibn Affaan ci mën a jaam borom rawatina nag di ci wàllu julli guddi ci wàllu julli guddi wa an ibnu sirin radiyallahu anhu qaal qaalat imraatu osmaana xiina qutila laqad qataltumuuhu wa innahu la yuxyi layla kullahu bilqur'ani fii rakka ibnu sirin nee na bis bi ñu reyee Ousmane nee na soxnaam mu wax ni ah yeneen ko rey day waaye nag kii xam ne ki ngeen rey nii day ni la koo xam daana fanaa ne dundal guddi gi ci jàng ci ab kaan ba mu jeex nga xam dafay taxaw jàng tàmbalee bàqare di jàng ban naa si ci guddi gi di ko jaamu boromam di ko dundale guddi gi kon kooku mooy Ousmane ibn Affan ci fonk alquraanam ci fonk julleem guddi ci bëgg nga dem borom subhanahu wa taala xaal alxaafis ibn kasir fi lbidaaya wa nihaaya wa xad ruwiya an min gayri wajhin annahu salla bilqurani al azim fi rakxatin waxidatin inda alxajar al aswad ayaam alxaj wa kaana hada min da min dabihi radiallahu anhu wa lihada rawayna an ibni omar radiallahu annu qaal fi qawlihi taala mbokki ñu jëlee ci alxaafis ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya muy téere bu am solo muy wax ni dañu nettali lu ëpp aw yoon ñu wax ni usmaan radiallahu anhu daana jullee alquran ba mu jeex ci benn rakka daana jullee alquran ba mu jeex ci benn rakka nga xam ne kon su jullee ay shafa ba pare day wéttare kaamil bi maanaam rakka bi mujj bi mujju julli dafiy jàng baqara ba naasi mu daal di jeexal julleem kon gis nañ kon nit la ko fonkoon julli guddi waaye rawatina na ci jàng alquranul karim nee na ku fonkoon nag la di dem ci xajarul aswad ca wetu kaaba ga dafa jullee alquran kon kooku mooy Usmaan Maafan radiyallahu anhu moo tax ndeysaan bi ko xasaan di e, tagg ginnaaw bi ñu ko rayee dafa waxoon ni daxaw bi ashtama unwaanu sujudi bihi yuqattiu layla tasbihan wa qur'ana bi wax ne daal ah ki ñu ray nit loon koo xamante ne bii dafa nekkoon ku rax bi jaaw nga xam ni dafa am karaw gu weex ak gu ñuul ci boppam doon xaw doon mag ci at waaye nekk koo xam ne ku fonkoon nag la sujud ci ab jëxam fonkoon lool julli guddi te daf daa jeexal guddi gi ci jàng alquran di ko naafila ak di fanaanee bàkk boromam ba fajar jot kon fonkon la jaam yàlla guddi moom Usmaan radiallahu anhu moo tax ba demee ci Nawawi day wax ci tibyaan di wax ni fa min alladina kaanu yaxtimuuna alxatmata fi lyowmi wa layla Usmaan ibn Affan radiallahu anhu wa tamimu daari wa saad bnu jubayr wa mujahid wa shafii wa axaruun euh, naw wii nee na ci tibyaan am na ci jaam yàlla ñoo xam ni daanañ jàng alquran ba mu jeex ci benn bës nga xam bis bi nañ jàng dañ ko commencé kaamil bàqar ba naasi jàng ba mu jeex ci benn bés bokk na ci ñooñu nag nee na Usmaan ibn Affan daana ko def naka noonu itam ki ñuy wax tamit mu daari moom daana jàng alquran ba mu jeex ci benn bés naka noonu itam Saad ibnu Jubayr daana jàng alquran ba mu jeex ci benn bés naka noonu itam Mujahid naka noonu itam imam Shafi kon ñii daanañ jàng alquran ba mu jeex tàmbalee baqara ba naasi ci benn bés ngir jaam seen borom kon Ousmane ku bëggoon jaamu yàlla rawatina nag di jàng alquran rawatina ci naafila rawatina ci biir guddi gi wa kaana radiyallahu anhu laa yuqizu ahadan min ahlihi ida qaama min alleyli fa li yuinahu ala waduih illa an yajidahu yaqzanan wa kaana yasuumu addahra wa kaana yuaatabu fa yuqaal law ayqazta bada alxidam fa yaquul laa alleylu lahum yastarixuuna fii mbokk yi Usmaan ibnu Affaan bokkoon na ci baaxam bokkoon na ci aadaam mooy daf daa fanaane julli guddi di ci jàng alquran waaye nag bu jógee di julli guddi du yee kenn ci waa këram bu fekkee yewwuñ maanaam jóg di yeete pour ñu di ko tànqal ndoxum jàpp daw ko def su jógee mooy dem utal boppam ndoxum jàpp jàppa daal di nag taxaw di naafil la ba fajar di bëgg jot mais dawul yee waa këram di leen sonal ci guddi gi day daw ko def nee na Ousmane tam ku bëggoon la koor ko daa faral di woor lu bëri la ci bëccëg yi waaye nekk na koo xam ne tamit masaan yedd ni ko waaw yow ni nga baree ay ay surga bari ay njaboot lan moo tee bi guddee nga yee leen ñu dooleel ndox pour ngay jàpp mu ni déedéet dama leen yee ndax ñii may liggéeyal bëccëg gi dañoo war noppal guddi gi guddi moom du pour liggéey mais pour noppaliku la kon nag li nga jàng mooy kii am dafa nekk patron itam am ay bon wala mu am ay ay ay ay ay liggéeykat mbindaan ci këram war na bàyyi xel loolu mooy di leen bañ ñu noppalu ci guddi gi ndax ñun guddi rek la am pour noppalu mais bëccëg la ñuy liggéey nañu noppalu guddi gi am na ñoo xam ne dañu tëxat tëxat boo xam ni fu ñu soxlaa rek soxla dañuy dañuy oo seen bi naan wala seen bon même guddi dañ koy yee ngir ñaan ñaan ndax pour naan rek vraiment dëgg yàlla du bokkul ci modeste kon Ousmane mu ko fonkan la jullit mais dawul yeew ak njabootam pour di leen sonal déedéet day bàyyi ñëpp ñuy nelaw bu fekkee yeewuñ mu dem ne duwee boppam ndox jàppal jàpp doo taxaw nag di julli guddeem wa an asan radiallahu anhu qaal qaala usmaan radiallahu anhu law anna qulubana tahurat ma shabicna min kalaami rabbina wa inni la akrahu la akrahu an yatiya alay yowmun la anzuru fiihi fi lmushaf aw la anzuru fi lmushaf mbokk yi jël nañ ci xasan muy wax ne Ousmane dafa waxoon ni man de bu fekkee ñun jullit ñi suñu xol dafa set suñu xol dafa laab suñu xol dafa baax suñu xol dafa dala ngëm yàlla nee na kon duñ duñ suur mukk jàng alquran kon amul kenn ci ñun koy doyal ci jàng alquran bu fekkee suñu xol dafa set wécc laab ngëm yàlla ga ci war a nekk nekk ci nee na kon amul benn jullit buy sonn ci jàng alquran waaye jullit ñu bare bari ci ñun moom buñ jàng sa benn fëy ci kii alquran jàmbaar lañ am ñoo duñ ko laal benn yoon ci weer bi war na mbokk yi du jikkooy jullit war nga lu mu gàtt-gàtt doon da nga jàng sax benn verset wala ñaar nga di ko jàng ci alxuraanu karim loolu dafay dënal xolu jullit Ousmane moom ko fonkoon jàng daan daan wax ne man bañ naa lool ba bis bis bi jàll te du ci xool kaamil maanaam bis la mu jàll bis jàll ba mu jeex te sama ba tegoo ci alxuraan neen loolu man damay naq damay metti bëgguma ko kon nag jullit foofu la war a nga xam ni mun ta xëy ba ngoon te ubbuwul kaamil xool ko am ñoo xam ne jël journal lire ko mooy gënal junni yoon jàng alxuraan te lii di wax yàlla lee di waxu ay jaam rek wa maata Ousmane radiallahu anhu xatta wa ma maata Ousmane xatta quriqa musxafuhu min kasrati maay dimu nazara fiihi mbokki Ousmane bi mu faatoo lu gaaw gaaw rek dañu xool kaamil bi mu doon jàng mu daal di ràpp tàmbalee xotteeku ndax daf ñu daa jàng lu bëree bëri daa jàng ci kaamilam mais ñun am na ñoo xam nañu suñ yaa kaamil moom dañ ko def rek comme comme meuble rek suñu oto suñu kër mais duñ ci faral nag di jàng am na ñoo xam seen seen kaamil yi ñu ut décoration la mais ne du tout pour jaamu yàlla déedéet da ngay seen ko am am bu rafet teg ci kaamil mais du ci jàng ko am salon bu rafet teg ci kaamil mais ci jàng loolu nag du pour kaamil pour kaamil pour lan la pour jàng ak pour joxe la mais du pour denc noonu rek déedéet Ousmane moom kenn bi ñu doon daan jàng dafa fàttali comment kaamil commencé euh, xotti ko ndax dafa yaa jàng lu bëree bëree bëri xam naa kon day mel ni mbokk yi dañuy taxaw fii nag euh, wàcc suñ kàddu fii ci fi ñu toll nii incha allah. bu ñëwaatee benn yoon nag jéem a àggale xis bi ñu toll incha allah xam naa ñu sant bu baax mbokk yi tey damay bañ a lim nag eh, fàtte kenn ma damay nuyu ñëpp rek damay nuyu ñëpp nuyu itam suñu caméraman yu baax yi nuyu Abou Bakr nuyu itam Abdoul Qadir nuyu itam eh, sama xulawaale bële maa ngi koy nuyu waaye nuyu itam nag eh, soxna Gagne Siri ak madame Gise Fela ci régie nuyu itam mbokk yëpp mbokk jërë ngeen